yàlla na nga leeral sama dënn yàlla na nga jàppandal sama mbir rabbi israh li sadri wa yassir li amri rabbi israh li sadri wa yassir li amri xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa nee na waxtu wu kenn ci yéen génne këram jëm ca jàkka ja benn tànkam dañu ko ciy bindal tuyaaba beneen tànk ba ñu ko ciy faral ay ñaawteef xadis bi ahmad nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa min xiina yaxruju axadukum min manzilihi ila masjidi fa rijlun tuktabu xasana wal uxra tabxu sayya rawaahu ahmad waxtu julli suba waxtam dana tàbbi 5 juróom 41 juróomi waxtu yu tegal fukki simili ak benn tisbaar 13 heures 32 benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñaar takkusaan 16 heures 32 ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñaar timis 19 heures 17 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñaar gee 20 juróom-ñetti yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñett